mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fees ci xibaar yi daal di koy dooree teg loxo ga nga xamante ni teg nañ ko loxo Assane Diouf loolee moo ku jéeg politique gi ku ci mel ni nag Khalifa Ababacar Sall daal dina yëkkati ko ci yi ñuy woowee tweet ca waxtu boobee nag Khalifa Ababacar Sall nee na nguur gu jeexal ak nguur goo xamante ni dafay waaj a dem doxalin wañu doxalee ci kaw Assane Diouf rek moo ko daal di firndeel mu ngi xam ne nag teg loxo ga nga xamante ni teg nañ ko loxo Assane Diouf doon na lu ñaaw doon lu salte doon tamit loo xamante lu tuuti la waral ba moom Khalifa Sall li sàkku jamono ji mooy ñu daal bàyyi kii di Assane Diouf ko koy toppee vidéo ba ba mu ko defee ëpp na juróom bi bëgg ko cee tegub loxo mu daan ne nag mbir mu ñu lu lâche la mu daan ne nag nguur goo xamante ni dangay jeexal jamono ji li ngay def rek du leen lu dul jàpp say citoyen yi ne leen ràpp ci kaso nañu ko daal di teg loolee daal di nay wone ab injustice wa nga xamante moom la ñu yëkkati teg ko ko pare ne ko ràpp jàpp ca kaso ba waxtu boobee nag kii di Khalifa Ababacar Sall moom candidat bu coalition taxawu Sénégal ci élection présidentielle atum 2024 mu daal di taxaw daal ne nguur gi nag leen dese mooy daal di di leen def li nga xamante ne nag moom moo di xañ seen àq ak seen yelleef waaye tamit tee leen di leen tongal ak naan leen ràpp ci kaso bi mu daal ne tëj nañ ko kii di Assane Diouf mu daal ne lu ñaaw la te li muy sàkk mooy ñu daal di bàyyi Assane Diouf te bañ a yëkkati benn condamnation daal di koy teg ca kawam Khalifa Ababacar Sall ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru moo daal di yëkkati yooyu le kàddu